ci ni mooy le 30 août ci la contrat am euh, jeexoon euh, ministre bi daal di décider bañ ko renouveler ñenn ñi sax jàpp ne dañu ko limogé non dañu arrêté li nga xamante ni dañu ko renouveler wul voilà yokkuñu li nga xamante ni mooy contrat bi dinañu wax également kan moo war a remplacer kan la ñuy njort ni ci équipe nationale moom moo war moo ko war a remplacer am na ñu xalaat euh, Pape Bouna Thiaw dinañ waxtaane également 26 jours yi nga xamante ni dañ ko dañ leen daal di convoqué mais également suñu internationaux yi nga xamante ni ña nga fële ca bitim réew seen i euh, performance bëgg nañu ko waxtaane jaraaf également bi nga xamante ne qualifié na euh, coupe CAF loolu également moom la ñuy daanelee waxtaan bi balaa ñuy gën a avancé nag dañuy bàyyi Mouhamed xam naa mu wax ñu à peu près palmarès ki nga xamante ni moom mooy Aliou

xamante ne moo di euh, Algérie ak euh, suma juumul ki nga xamante ne moo di euh, Zimbabwe donc mm. Sénégal toogoon ci premier tour ñu ñëw en 2015 en mois de mars. Mhm. ñu jox ki nga xam moo di Aliou Cissé nationale bu Sénégal mais aussi lépp li nga xamante doon na mën a tax. Euh, Euh, équipe bi gën a mën a wone boppam ci li nga xam te moo di mm-hmm. dendu Afrique donc qualification boobu atu 2017 ñu fubal lu jëm ci coupe d'Afrique boobu ñu doon amal ci Gabon Sénégal daal di def parcours bu am solo ci premier tour yi mais ci quart de finale yi mu dajeek benn équipe Cameroun bi nga xamante ne yàgg na nekk euh, bête noire am ci en tout cas élimination directe yu jëm ci wàllum Coupe d'Afrique Cameroun daal di koy éliminer ci tiro bi mais yemuñ foofu aussi parcours Aliou mën nañ ci lim qualification coupe du monde atum gannaaw atum ñu doon daw ci li nga xam di ñaareelu qualification moom Aliou Cissé mu réaliser boobu lépp euh, performance waaye tamit boobu la exploit daal di yor équipe nationale bu Sénégal mu qualifié ci coupe du monde atum 2018 bi ñu doon amal foofu la ca Russie mu nekk nag deuxième qualification bu dugg ci taarix ci wàllum football ak euh, gannaaw atum bi nga la euh, Sénégal boobu lépp euh, Coupe d'Afrique xam nañ ni ñu éliminé nag ci premier tour yi mhm. daanaka cumul de carton bokkoon na ci lu tax ñu éliminé équipe nationale bu Sénégal euh, ci poule bi nga xamante ne na ko ak euh, kii di Japon waaye nag yemul foofu en 2019 mu def beneen exploit moom Aliou Cissé qualifié li nga xamante moo di finale Coupe d'Afrique des Nations lu yàgg Sénégal doon ko wër boobu lépp qualification mu def ko ñaareelu yoon ci digganteem ak ne ñoo di waa campagne boobule mais ci final ba ak bii bu teel bu ñu Algérie dugal tax ñu ñàkk li nga xamante ne mm. euh, moo di finalu Coupe d'Afrique atum 2019 euh, alors bu ñu fa jógee muy wëy di def ay exploit Euh, daanaka ci qualification yi ak li nga xamante ne moo di classement FIFA fii si dendu Afrique mu nekk ci bopp ba durant trois ans waaye nag boobule ba ñu jógee ci CAN 2019 mu tegaat enchaîné waat ak li nga xamante ne moo di qualification pour la troisième fois euh, ci finalu Coupe d'Afrique 2021 euh, boobule marqué bu baax a baax épopée wu footballu Sénégal bi ndax si la Sénégal jël étoile bu njëkk fii ci dendu Afrique ñu gagné ko Euh, ci campagne bi noonu amal foofu foofule ca Cameroun gannaaw loolu tamit moom Aliou Cissé bàyyiwul ànd ak équipe national bu Sénégal daal di qualifié ci coupe du monde. Qatar 2022 mm-hmm. mu nekk qualification bu historique parce que coupe du monde Qatar 2022 daanaka nation yëpp mm-hmm. ñu woon nangu euh, ñàkk fa bañ a dem donc métti woon na trop ci qualification bi terewul moom Aliou ak ay gayndeem ñu wane ci jàmbaar bu mat sëkk ba qualifié ci Qatar 2022 mm-hmm. mu yemoon bu njëkk ñu doon organiser euh, coupe d'Afrique foofule ci réewu golfe bi donc euh, en pour tout mën nañu jàpp ne li mooy parcours bu Aliou Cissé ci bopp équipe nationale bu Sénégal jël kan